góor gi tële nag li nga xam ne moo xew fi mu toll nii ci àdduna yàq ci man. yemoo ceeb ku yàlla bind. dëgg la Cheikh Ibrahima Keïta. dëgg la. damay wax ni. waaw gars yi dañuy faj rek. wala ñuy faj jinne di ko mbot di ko dóor ñu koy def pour wér. wante moom da lay xool wér. mbokk yi borom xam-xam bu mag bi kat ñëw na di Serigne Cheikh Ibrahima Keita mi nga xam ni mooy sëtu Soundiata Keita xam-xamam màcc mu donn ko ci ay maamam ñëw na Ndakaaru te ma nga ca deux voies liberté si rond point ginnaaw boo weesoo camp pénal li muy faj bare na ku ami rab da koy faj képp koo xam dañ laa liggéey demal ca moom ku bëgg bayre moo xam nga bëgg a siiw demal ca moom kuy wut ay këyit mu jafale ci wàllu tukki mën na ko ne moo di ku tële di góor ci wàllu sëy mën na ko jigéen joo xamee dooma la të mën na ko góor goo xamante ni dangaa bëgg am soxna wala soxna ju bëgg am jëkkër kii di Serigne Cheikh Ibrahima Keita moo ci gaaw mbokk yi dama ni képp koo xamante ni place ba nga ne dangaa yaakaar ni dañ la faa bëgg a jëlee dawal gaar nga seeti Serigne Cheikh Ibrahima Keita di tradipraticien bu mag doon ko ci ay maamam Soundiata Keita roi du Mandeng mbokk yi numéro téléphone bi 77 664 92 92 76 136 78 30 70 xam-xam baa ngi noonu di Cheikh Ibrahima Keita loo fa indi bu neexee yàlla mu faj ko. xam nga Ibrahima Keita yow mooy borom ninki nanka yi. ak ñebe kii kii. ndeysaan ku ko dégg nu muy waxee. Hmm. ak ku ko dégg nu muy waxee. Hmm. ku ko dégg nu muy waxee. Hmm. nga xam ni kii. dëgg moo ko tax a jóg. dëgg la dëgg moo ko ñor. ndeysaan ñun boo gisee ñu rey suñu bopp. di rey suñu bopp bu baax a baax. wallaahi jëmm ji la. wallaahi ndax moo ñu ko wan. wallaahi moo tax ñu rey suñu bopp. dëgg la moo ñu ko moo ko jar. ndeysaan waaw ndax ñun amoon nañ fu ñu nekkoon. ndeysaan ci défaillant bi Fouta. day leer ci défaillant bi. ci défaillant bi kuy topp ki gën a bëri wax ci Sénégal ci àdduna bi xamul dara. xamoon nañ kooku. Uh-huh. yéenewul nit ba ku jógee ku jógee si moom démb démb démb démb. mooy kurus bu mu sàcc noonu. waaw ku jógee si moom démb démb démb. Uh-huh, uh-huh. mu ngi wax bonaayam. ndeysaan. barki yàlla. dëgg la di ma di ma di di di ma wax si moom naan ma. bugguma ñoom bugguñ ñu am. Saliou. d' ah, ah. mooy li ma la wax rek. Ah. léegi comme ni ko Ablaye waxee rek. Mm-hmm. waxoon naa fi ñetti fan. jóge ci ñetti fan ñëw ci ñaar. jóge fa ñëw ci benn. ñëw ci benn jóge ci benn ñëw ci quelques minutes. quelques heures léegi garab dañ ko joxe. ay ay ay. ah kon boo ma waxee ma gëm ko. léegi gannaaw yàlla ak yeneen tàmba. sama darajay maam. aajo yi dañ koy faj. ah saa jotee garab. Cheikh Ibrahima Keita. kon maanaam maanaam maanaam maanaam seen prise bi léegi la ñuy joxe. te yaay branché. waaw léegi yaay branché yaay taal. Ah, Saliou ah, ah, Saliou branché rek weesuwul li. Hmm. macha allah macha allah. ñu ngi wax dëgg yàlla cooju yow. ñu ngi nice xoolal fii wax dëgg yàlla ku torox kuy wax torox xam ne yow mi toog di wax. wallaahi wallaahi parce que. sant yàlla daal di xamal jaamu yàlla yi Cheikh Ibrahima Keita et là. dafa demoon dëkk ba Mali. Mhm. waaw yëngal jaaj yi foofu. waaw ñibbi si. ay <laughs> ànd ak ànd ak ànd ak ànd ak ñooñu su njata. waay ñooñu su njata yi. waay ñooñu su njata yi. ànd ak ñoom. mën naa ne jamono ji amul fuy sedd. déedéet déedéet déedéet boo ko waay. deux mille vingt bi. Ah, ah. dina mel ni tuq sa bënn ah! saa yi. danañ gis dégg lu ñu musta gis. ndeysaan. Cheikh Ibrahima Keita génn na de. ndeysaan Cheikh Ibrahima Keita ñëwati na de. dana leen ko de. jóge na Mali. le roi Mandé. le roi Mandé. la xalif général la xalif général de Soundiata Keita. jóge na Mali <laughs> di la débarrassé. ndeysaan mais ah. ah. bu ñu toll. Ah. nga xam ne Cheikh Ibrahima Keita dama gis ni Sénégal. stade yi ñu fiy wax yëpp ci sa keppaar la ñuy dajaloo. fii la seen mbir di sottee. fii la seen i di baaxee. gisoo sama voyage bi xaw nañ maa mere tuuti. dëgg la daanaka boo xoolee rek. ci programme. dëggkat yi. ak yow yi seen programme yëpp dañ koo puusaat. dëgg la boo xoolee. c'est vrai seen programme yëpp dañ koo puusaat. dëgg kon li lay wan nii. Mm-hmm. maanaam euh, mbir mi. Mm-hmm. Euh, ma ne roy du nuroog pire roy du nuroog pire déedéet mm-hmm. euh, ma lay wax rek bari ko bu fees du yëngu. mais kay toog naan man a man a bàyyil ba ñu ne la yow la. sëñ bi Cheikh Ibrahima Keita bàyyam da ko way ci ba muy am ñeenti at. wallaahi juddu ko ba muy am ñeenti at la sama bàyyi taalif téere ci yemul ci loolu mu jox ko suma ndey. mu mokkal ko ne ko mokkalal way ji. ndax bu ma ko woyee rek yem ci dañ naan bis boobu man bàyyam dama kontaanoon ci moom. mais dafa bëggoon loolu sax bañ a dee. man la ma def li ma doon du man yàlla la. man la ak ñaar yow yow yow Cheikh Ibrahima Keita bëri nga si mbattal la puus puus nga dem. ñàkk puus ñàkk puus nga dem. waaw ñooy ànd ak yow di la puus. di démarrer di démarrer. Sall. su wax bëri na waaye Sall dégg naa ci benn uh, wax tuuti. Hmm. dégg naa ñu ne chef dafa nar benn télé lu doon loo xamante ni rumeur la rek. bi ngelaw bi naan rek. waaw mu ne télé Soundiata Keita télé bi daal xaw ma. ndeysaan naa ko moom yaay borom ji ne dañuy bëgg lépp leer. waaw Mandeng TV moom dox nañ ko. waaw parce que euh, même sama dem bi ma dem. ndeysaan euh, gisante nañ ak président bi. ndeysaan euh, jàpp na ci def na ci tous les moyens. ndeysaan waaw nit bu la defalee lu baax. da nga koy wax ay millions la ci def. ndeysaan ay millions la ci def qu'on se dit la vérité ay millions la ci def ndeysaan sant yàlla bu baax xol dafa sedd Mandeng TV bu ñu ne Mandeng du Sénégal du oh. Mali du Burkina du Waalo du Dagana fépp la ndeysaan képp kuy làkkat ak ku dul làkkat képp kuy africain télé boobu sax télé la bientôt insha allahu taala da ngeen ci gis ñetti gars yi insha allahu taala Cheikh Ibrahima Keita loolu moom Mandeng TV la quoi wax dëgg yàlla Cheikh Ibrahima Keita man balaa ma continuer émission bi dem nga fële ñëw nga am nga loo indaale nee naa la ñetti fan la woon jóge fa yéen doon ñaari fan. jóge fa doon benn fan wax dëgg yàlla jóge foofu noonu. doon quelques heures léegi man balaa maa continuer sama émission damay ñëw tàllal la samay loxo nga ñaanal ma après mu mën a continuer sama émission. incha allah ndeysaan amiin. allahu latifu bi wax di yarzuq man yashaa. amiin amiin amiin yaa rabbi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون salaamu alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin kay mbokki àdduna nee naa la àdduna xam-xam lii la wax dëgg yàlla xam-xam du wax xam-xam du tëbaka dal xam-xam du wax ne yow yaay bàyyi sëriñ yi xam du wax ne yow yàlla dala may lu mu mayul kenn yàlla mayu lu mu mayul jëmm ji nee la bu dee da ngay sëriñ bi faj kii mooy sa bàyyi Cheikh Ibrahima Keita mbokki àdduna mbokki Sénégal ba tey dañuy wéyee plateau bu am solo bi nga xam ne ni moom la ñuy amal fi nga xam ne ni mooy kër Cheikh Ibrahima Keita le roi Mandé Cheikh bi ñu gis ne 2020 bi ay surprise rek nga fi nar a amal. wallaahi wallaahi 2020 bi ay surprise rek la Cheikh Ibrahima Keita nar a amal loolu lan la. wallaahi sant yàlla c'est que xam nga comme ni nga koy waxee le marabout du peuple. ndeysaan dafa am loo xamante ni teguma ko suma bopp nit ñee ma bëgg. ndeysaan nit ñee ma bëgg jinne yi bëgg ma malaaka yi bëgg ma yàlla bëgg ma. wallaahi ñëpp bëgg ma xam nga lu waral loolu. mooy li may wax rek nit ki boo bëggee nit ñi naw la. da jël sa bopp nga yemale ko ak nit ñi. boo mm-hmm. yemalul munoo leen ànd. Mm-hmm. te koo dee nit war a ànd ak nit ñi. Mm-hmm. da ngay yem ak ñoom. dëgg la koo koo sut wala koo wan ne yaa ko rek mu dem bàyyi la. kon nañ sant yàlla bu baax. surprise yi jeexagul. Mhm. télé Mandeng TV yi. ndeysaan kooku dana tëj gémmiñ ñu bari. ndeysaan ndeysaan ndax. ak tuutu yi nag. yéen il faut ñu laaxaale ñu. waaw yéen mënuñu leen tee bañ a laaxaale. loolu loolu du site internet. Ah. télévision la télévision la. télévision chaîne nationale. chaîne nationale bi nga xam ne da nga am ci buggee canal am ko ci buggee Delta TV am ko ci buggee bi nga xam ne ni mooy Excaf Télécom war wax dëgg yàlla nag mbokk lii mooy liggéeyal sa réew lii mooy liggéeyal sa askan liggéeyal sa askan mooy lii di Cheikh Ibrahima Keita di def kon mm. Cheikh Ibrahima Keita àdduna kontaan nañ ci yow président kontaan nañ ci yow ministre yi kontaan nañ ci yow mais ba tey rek balaa maa xuus tamit dama gis jamono ji am na ministre yoo xam ne seeni bagage day baaxee fii nii ci kër gi loolu tamit lan la koy tax waaw sant yàlla rek xam nga maanaam preuve buñ koy gis hmm. mais dañuy seetaan télé ah dañuy seetaan YouTube bi xam nañ Cheikh Ibrahima Keïta nu roowul ak gars yi parce que la fi nekk ak la may faj ah. du benn damay dégg ci say émission nga koy wax Cheikh Ibrahima hmm. Keita maanaam lu ne da koy faj. wallaahi xam nga mbir mi. du hmm. benn affaire rek ciblé benn affaire rek. Hmm. Euh, jinne jinne wala généraliser. tous les malades. ak tous les besoins nga koy faj man Cheikh ba tey refusé wu ma lu ñëw mu faj ko ci kàttanu yàlla ndax fa ma wéeru moo dëgëral Soundiata Keita le père des nations le roi Mandé deretam mooy daw ci man xam-xam bi même bu ma ko bëggul woon bu ma ñaanalee nit day am plus même bu ma doonul woon fajkat bu ma ñaanalee doomu aadama day am ndax kay sama maam kooku ngay njëkk a lijjanti Soundiata Keita pour tuur deretam ndax Afrique Soundiata Keita sëtu Bilal Ibn Rabah sa maama ko liggéey laa gis nga Abla Mouhamed ku baax rek kay am ku baax Bilal ibnu Rabah li mu def ci diineel islaam sonn ko nangul ko yenente yàlla Mouhamed ñu jël xeer bu mag teg ko ci dënnam muy tudd yàlla naan ahadul ahad yàlla fay ko Sunjata Kayta Sunjata Kayta ba muy raam di jooy naan yaay fexeel ma jóg bu ma jógee Sunjata de mooy wax de bu ma jógee dinaa yëngal àddina. ndeysaan comme nu ndox di yëngoo ci leket. Oh. Ah, xam nga leket kaarewul. boo fa defee ndox munul toog. déedéet da nekk. mu ne yaay fexeel ma jóg bu ma jógee dinaa yëngal àddina comme nu ndox di yëngatoo ci biir leket. ndeysaan. Mm-hmm. yaa ko doon nag kooku la yàlla fayee Bilal. ndeysaan Soundiata Keita nag kan la ko yàlla fayee. yow Cheikh Ibrahima Keita. kon macha allah mbokk yàlla. sant yàlla waaw lu wér. ndeysaan lu dëgg naa dégg de. lu dagg lu ne. morom jalay fekk morom jalay fekk. ci lu ne Cheikh Ibrahima Keita ah, boo gisee mu mel ni mu mel. Mm-hmm. maanaam asku bi la lu arab naan asku. Mm-hmm. am nisba. askan bi la. Cheikh Ibrahima Keita Sunjata Bilal ibn Rabah. Oh. kon lu set wecc moo fi nekk. macha allah ñetti ñëw na ndeysaan macha allah maanaam ku njëkkoon noddal maanaam ku njëkkoon noddal islam. ndeysaan <laughs> yaa ko wax. ku njëkkoon noddal islam. looloo am toog si kaw Kaaba la. Mm. maamu kii. ndeysaan moo jur maamam moom mu ñëw ñetteel leen. nekk xay xalifa kon kay amatul wax Sénégal. ñetti leer na ñetti fan yi leer na. ndeysaan te xam nga léegi lu la doon wax ay kii naan la ay Cheikh Ibrahima Guèye de fii. Hmm. day xaar trois trois jours wala une semaine wala benn. Cheikh Ibrahima Guèye de léegi xamul lu indaale. léegi joxatul saa. vite fait. branché nga di jóg. ndeysaan fii ñun ñoo branché ah! ndeysaan mais ñun ñoo branché waaw ndeysaan mbokki àdduna mbokki Sénégal yéen a ko déggandoo nee naa leen euh, Cheikh Ibrahima Keita mu ngi fii nee naa leen le roi Mandeng mu ngi fii nee naa leen général de Soundiata Keita mu fii borom bëri bëri léegi quelques minutes quelque temps wax dëgg yàlla secret la boo xam ne nii moom moo am donc nit da ngay am code boo xam ne moom ngay wax ak yàlla te Cheikh Ibrahima Keita mii dafa yor code boobu donc Cheikh Ibrahima Keita li mu gën a neex ci moom li ma àdduna di wax askan wi mooy Cheikh Ibrahima Keita du du fëgg dënn du toog xas kenn sëriñ yëpp a ko naaw ñëpp ko jox cër kon Keita macha allah dundal ba tax na Cheikh Ibrahima Keita xam naa dañuy amali fii plateau bi ñu jox la kàddu gi rek nga ñaanal askan wi tàggatoo wax dëgg yàlla na namoon nañ la ak lan ngay wax soppe yi nga xam ne ni ñu ngi lay bëgg di la seetaan alhamdulilah sant yàlla di ñaanal monde entier di kontaan bu baax a baax di xamal patients yi ñu ngi fi mm-hmm. dañoo demoon seeti dëkk ba ñibbisi nañ ñu ngi fi pour man li may génn sax bariwul mm-hmm. li may li delloo buum ca boy boy ba. ndeysaan di nuyoo suma ninki nanka yi. ndeysaan waaw Mohamed Ablaye Saliou. jërëjëf ak waa kër gi. jërëjëf waaw di nuyu monde entier. ndeysaan waaw maa ngi nuyu sama rakk sama xarit Hawa. ndeysaan waaw Hawa. waaw ñu ngi lay bëgg bu baax a baax. maa ngi koy nuyu bu baax a baax borom zoom focus. waaw borom zoom focus. ndeysaan ndeysaan waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla ubbi ko ci site internet bi. amiin amiin amiin site internet am bi. amiin amiin yàlla ubbi ko ci ba mu doon ay télé télé. amiin amiin waaye ñu ngi nuyu monde entier daal. amiin jërëjëf yàlla def jàmm. jërëjëf aajo tey daal nee naa la mbokk boo aajo fajo da ngay ñëw fii fii mooy kan keppaaru Cheikh Ibrahima Keita le roi Mandeng le roi d'Afrique le khalife général de Soundiata Keita un deux trois Keita góor gi tële nag li nga xam ne moo xew fi mu toll nii ci àdduna yàq ci man yemoo ceeb ku yàlla bind Cheikh Ibrahima Keita dëgg la xanaa wag li gars yi da ngay faj wala ñuy faj jinne di ko mbot di ko dóor ñu ne ñu koy def pour wér. dëgg la wante moom da lay